mer maintenant euh, man en tant que Amath Suzanne euh, avant président di wax ne diw la c'est-à-dire bi président bàyyee rek ne bokkatuma euh, man bokkoon naa si ñu doon jóg di wax te li ma taxoon a jóg moo doon dama dañ ne bërëd rek dawal ñu commencé di wax ay affaires authentiques maanaam la ñu war a jox ko ko si loolu loolu ma taxoon a jóg après ñuy continuer muy am ay yeneen développement bu amee ay développement ñun tamit dañuy jóg taxaw pour recadrer les choses alors donc kon man euh, dama am contentement damay d'abord remercier le président de la République parce que man gis-gis bi ma amoon man ki ma jàppoon ne moom la président war a tànn mooy Amadou Ba donc tey président def ko kon damay remercier le président sant ko parce que euh, pour man c'était le bon choix Amadou avait le meilleur profil. Hmm. Alors, si, pour moi, il avait le meilleur profil. Il est membre fondateur de l'APR oui, xam nga aujourd'hui, euh, bu fekkee qu'il ne membre fondateur de l'APR PR, Mame Boye Diao parce que Mamboy, il moom plus de 10 ans ou 10 ans Mamboy, 2015 il est dans le parti te 2015 ak léegi matul 10 ans kon mon beaucoup ci membre fondateur yi kuy membre fondateur moi, ku ak Macky depuis 2008. Hmm. muy wut voilà au moins nga avant muy accéder au pouvoir 2012. man mi di la sama compagnonnage avec le président Macky depuis 2006 la boobu mu PDS mhm. alors donc affaire bi du ñu c'est vrai critère pour baax mais c'est pas le seul critère pour déterminer le candidat critères parce que moi, j'ai un critère qui cité. Euh, wax nga ko léegi euh, maanaam légitimité populaire. moom jàpp na ne maam booy am na. ak base politique waaw euh, effectivement mooy légitimité populaire presque. Mhm. alors am na légitimité charismatique. Mhm. am na légitimité historique maanaam comme li nga wax léegi li ñu doon wax léegi ne ay yàgg ci parti bi fekkee lépp ak yooyu mais problème bi mooy président bi mu ne dafa bàyyi dañ ko jox carte blanche.

mais c'est l'écrasante majorité loolu lañ gis même ñu bokkul APR foo taxawaan dañuy ne la ah ku mel na Amadou Ba alors mu ngi wax euh, maanaam koo xam ne mais ku mel ni Abdoulaye Daouda Diallo moom dem na ba retracé parcours am ñëw ci àndam ak président Macky Sall ak fi mu jaar yépp kooku nag looy wax ci légitimité am waaw xam nga tey hmm. euh, suñ ma daan invité avant choix bi dama daan wax bugguma di wax ci nit lu koy éliminer hmm. mais ku ci nekk

Mamboja, vous Diao bu que je suis may seetaan un xam na je wax je ndax message may échanger un moom un message le supprimer def ko éphémère. mais c'est personnel c'est entre vous deux. mais c'est quelqu'un qui a fait dafa Bankas, de de consignation il est maire de Kolda dem élection locale parallèle am kooku taxaw quand même mu wuti batu askan wi euh, c'est pas encore confirmé mais ci doxalinam que ne il peut être candidat nga bëgg taxaw il n'a pas il n'a pas de personnalité comme ça wa xam nga euh limay bañ ci parce que je sais qu'il va répliquer mais tay Mame boy dañ ko euh un impôt et domaine euh, fële euh, domaine j'ai dit dans une émission que ne Ngor Almadi terre bo fa jël litige la te loolu Mame Boye Diao moo ko def. terrain menez vos enquêtes. Ngor Almadi rek laa joxe exemple waxuma sax yeneen ak yeneen suuf su dakaar suuf soo fi jël y compris Ngor Almadi nga xam ne c'est des terrains de cinquante cent millions deux am na yuy jar sax lu ëpp loolu Mame Boye Diao boo fa teg am na litige foncier te loolu liggéeyam la moo ko def. mais président et sous les spectateurs oui su les spectateurs de qui. Mm-hmm. loo loolu loolu loolu. xam nga tamante boobu boo ko commencé rek mooy wane ne. su fekkee dafa commencé ci point A ci Mame Boye jaawo fan la jëm. kan moo xool seetaan ba litige am sans pour autant rien dire jusqu'à ce que aujourd'hui ñu naan mi ngi nekk candidat ou du nekk candidat loolu également est-ce que du yàpp sénégalais beneen beneen affaire bi mooy tey Mame booy Diao ban maillage envergure nationale la am am ko amul nekk maire. dans une localité tu war na tax Sénégal non et puis bonne expérience état à l'âme ensuite il n'est ne koo des compétir au niveau local tu sais Amadou Bala, par exemple mhm. on sait comment Mamboy a gagné et je l'ai dit dans une émission ah oui comment à part le suffrage universel ah. des cols si Mamboy Bimi, Bimi, euh, euh, Bibi euh, en tant qu'appel bien mhm. que l'opposition n'est pas n'est pas très représentée là-bas mais Bibi vous faites que ko ci muy muy dégringolé mais Mamboy a eu le soutien de Moussa Baldé parce que Moussa Baldé investit investi ce département là euh, euh, euh, Bibi a investi ce ci commune Moussa Baldé a Mamboy en donc Moussa Baldé a soutenu Mamboy dans la commune et la preuve c'est législative euh, Bibi dafa été... en avec Moussa a perdu sa commune donc yow munoo gagné sa commune qu'est-ce il faut que ñu la nous da ngay tout Sénégal Mamboy, li tax c'est grave parce que mon liste Benno Bokk nous lañ ko dans ci conseil départemental muy dem di jàppale Mamboy, mais liste parallèle mais Mamboy, Bokon na ci président euh, validé mm. le président ça wax bien que bon am na ñu ko ko reproché. Mm-hmm. waaw mais bon xëy na waru ko doon wax ci kaw mënoon na ko bañ a wax ci kaw mais bokkoon na ci li mu validé te effectivement te du boobu rek. parce que président aussi li mu doon bañ mooy suñu ay voix aussi dem ci opposition moo tax am na ñoo xam ne il toléré ñoom ñu def seen seen liste bopp. maintenant Mame Boye yow Mame Boye moo la gën a xam ne du dem campagne. ah oui pour lan. Nous devons campagne parce que Mamboy Boye dafa am lu mu bëggoon dafa am lu bëgg ci gouvernement la ministre parce que ce fait qu'on est après les locales juste l'INDEF, def remaniement il avait des chances ça je peux le je peux l'admettre il avait des chances de ci gouvernement mais demain, législatif, il a trébuché Père tout légui Les yow Ahmed Suzanne Camara est-ce que yow parce que li nga def beaucoup d'accusations gratuites aujourd'hui ci ci Amna mérite mérite bi Moy aujourd'hui comparé à Amadou il a gagné au moins Kolda. Mhm. Amadou Ba gagné wut fenn. il est premier ministre il a été nommé par décret Qu'est-ce ko bopp. ba kérok bi ñuy le 25 le 25 février 2024. mais non est-ce que du courage. momla la am ak ku ci melni de dire que ne ñu ci. et lolu est-ce que aujourd'hui la démocratie même dans la coalition Benno Bokk Yaakaar won train ko gisee non? Euh, d'abord pour Amadou Ba. élection locale mo dit parce que yow wax nga fi de Boye qui na fi 2014 euh 2022 yi Amadou Ba mais le président n'a pas porté son choix sur lui pour nous, nek candidat ci commune ba Dakar euh, la ville de Dakar te xam nga lan motax moo tax Diouf Sarr moo di comme c'est pas possible parce que il 2014 il fut le seul qu'est-ce? ne mom moo gagné. finalement tout le monde vous attaquez tout, finalement tout le monde mais c'est la vérité. vous attaquez Diouf ça parce que jàpp na ce que mon école à APR gagné dans sa commune te loolu li ñu ko gën c'est parce que y a une localité aussi une commune, des déggoowuñ suñu biir mais Diouf ça a fait l'effort de gagner donc quand mom jàpp na Birigno, kon bon logiquement mom la ñu war a les gars, léegi tànn tànnuñu Amadou Ba ñu quoi? mu ne Amadou Ba soutenir ko mais yow kay su fekkee da nga wóolu sa bopp ne yow yaa war a nekk mbër mi mais bu fekk quel que soit le schéma mais bu ñu la tànnee da nga war a gaje mooy comme li ma wax léegi ci Mamboy quand il n'a pas eu le soutien ci législative de Moussa Baldé il n'a pas gagné alors maintenant Amadou Ba législative 2017 mais moom lañ jiital. moo jiital si Dakar mais defuñ ko ci législative 2022. waaw mais lu tax muy dem di euh, jiitewul. lan moo tax nekkul jiitewul local 2022. di nangu di jiite euh, euh, euh, législative trois mois ou cinq mois après alors que les carottes étaient cuites. comment ci ah, nan lañ ko cuire ñaata voix lañ lañ ñu rawee à Dakar presque cent mille voix. Ah mom nan la koy mom moy mom moy nangu. di risque di dem di ko. di ko di ko di ko mais ku ñemewul Dakar ñëme nga Sénégal. non non waxuma ñemewul de dama né non dañu yàq Dakar ba pare si 5 mois ñu bëgg mu jël ko. mu jël fan la ñuy defar Kaolack wala Ndar wala fan. après Dakar c'est récupérable. Hmm. dama ne la 2017 dañu jiital Amadou Ba. ci liste Dakar mu gagné. fekk Khalifa Sall nekk ci kaso bi. da 2019. deux 2019 hmm. euh, ñu jiitalaat ko mu jiite région Dakar. Hmm. parrainage ak y compris lépp mu gagné. donc Amadou buñ ko tegee national ñu gagné te ensuite dafa am loo xam ne nit ñi dañ ko fàtte da nga defe ne Amadou Ba man Koungheul gi ma dëkk dafa milité département Koungheul ak. commune Koungheul région Kaffrine danga nga defee ne Amadou Ba mooy taxaw mooy tax ñu woteel ma euh, liste bi déedéet. Hmm. Ablaye Seydou Sow day mouiller le maillot si euh, Socé Diop mouiller mayo maillot Badouli mouiller le maillot maire ya fa nekk mouiller le maillot du gagné mais Sall kese. Amadou Ba kese taxul ñu gagné dans les localités. waaw mais moom am na mais taar bi mu wax nii amadu Ba moom la ko ñëpp di waxal. ne moom amul base mënul gagné mairie tey ñu jël ko jiital ko am na sax ñuy dem ba naan tam candidat bu tàmm defet la. léegi. Ablaye Wade dafa mës a gagné mairie. daf ko tere mu nekk président de la République du Sénégal. Amadou Ba dañ ko jiitalu ci élection municipale élection mairie mais lañ ko jiital gagné na ensuite affaire bi du question maire kese su fekkoon maire kese la mais kon xanaa koon maire yëpp la ñuy jiital wala président de conseil départemental Cheikh Omar Anne nii mu ngi nii du maire la di gagné gagné bu rafet est-ce que est-ce que taxaw na yëkkati loxoom. est-ce que as euh, dit euh, euh, ko. donc affaire du lolu mais le maillage du territoire bi yang a koy wax sank waaw mamboy Diao handicap. Mhm. mais Amadou est-ce que defna les 45 départements avec les 550 et quelques communes du Sénégal. man mi ak yow. Mhm. def ko plusieurs fois. syndicalement nous may des xam nañ ci dara. Mhm. politiquement defna 4 quatre ou 5 fois chaque département du Sénégal. donc lolu du raison. Hmm. Amadou non xaaral man du ma ne Amadou Ba su ko def mais Amadou Ba Dakar lay milité man lan moo ma gën a permettre ma def ko c'est parce que je suis un leader national un leader de euh, syndicat syndicat danga nga war dans tous les départements ba pare aussi ma nekk coordonnateur national du réseau des enseignants kon dama war a dem ci département bu ne mais Amadou Ba su ko defoon tey ñu jiiñ ko ko te déjà defu ko euh, euh, li ko génne woon ci gouvernement bi loolu ci la bokk ne dafa bok ci ñuy xol le fauteuil du président de la république donc il se concentre à Dakar mom la la wax tay bu jog joté dina jog dem fu nek mais localité ba né Saint-Louis ñoom Mansour